te dana daje fii d'ailleurs ak euh, waa conseil municipal bi tey jii daje ak euh, waa ARD bi ñëwoon tey jii soutenir ñu jàppale ñu avec euh, le directeur qui est ici la présent et son équipe et tout ce qui est sur le plan régional les service techniques au niveau du département au niveau de la commune pour que ñu wax d'abord li nga xam ni mooy mbëbëtu commune Mbacké li nga xam ni mën na war a def fii ak cinq ans deux mille vingt trois ba deux mille vingt sept pour que au moins ñu seet yan mooy bébir yi ak yan lañ war a def lu jàmp deux mille vingt trois lan lañ war a def ñu war a def ay mbébir yoo xam ni dina war a former ay nit ñu dem ci biir quartier yi parce que tey jii dañoo convoqué bi nga xam ne ñëw nañ délégué de quartier yi ñu ngi fi waa société civile ñu ngi fi ñi nga xam ni ñoo nekk yenn organisation yi Euh, même immigré yi sax ñoom ñëpp ñu fi ak euh, ñi nga xam ni ñoo war a nekk ay acteur de développement jigéen ak góor ñëpp daje fi tey ji pour def benn plan boo xam ne bii plan bii liñ ko wëbët mooy seet Mbacké cinq ans yi lan fi war a def mooy ci santé ci éducation ci sport ci culture loolu yëpp daf ci am kon je pense que loolu buñ ko defee ñun ñii euh, dañ ci ànd ak ñi nga xam ni ñooy suñu bras technique yi nga xam ne ñoo ñoo ñuy jàppale ci région bi waa ARD ñu indi ay mbébét yoo xam ne ñoo ñuy dicté li ñu war a def tey jii nag danañ former ay jeunes yoo xam ne mat fukk yoo xam ne ak juróom danañ dem ci terrain bi laaj ñu parce que d' abord dañoo bëgg léegi li ñuy def population bi def waxal ko seen bopp ñu seet lanañ ci war a def ci cinq ans yi deux mille vingt bi lanañ war a njëkk a commencé ba deux mille vingt sept d' euh, dëkk bi xar kan dëkk bi mu te loolu defe naa ni ñu ngi ci war defar loo xam ne bii mooy ay infrastructure infrastructure yi mooy d'abord ci centre de santé ci école yi ak ci vraiment li nga xam ne bii mooy cadre sport yi sax loolu itam ñu jàmp la ak culture yi nga xam ni am nañ ay projet yoo xam ni waroon ko mën a defar parce que day ji buñ toogee ni Mbàkke tey ji d'ailleurs fu nu war a dajaloo sax amuñu ko déjà c'est important te yooyu yëpp ay mbir loo xam ne ñu théâtre de verdure yi muy terrain de sport yi mooy école yi nga xam ne fi mu toll nii ku nekk xam ni classe yi ñu mën a defee te ji xale yi war nañ jàng dans de très bonnes conditions ak nit ñi war nañ faju groupe dara itam seet na lañ ko mën a yokkee defe naa ne loolu ci mooy yi gën a jàmp budget bi d' abord tey xayma nañ ko dèjà yi dañuy continuer di ko xayma parce que ñoom ñoo war a dem ci terrain bi euh, enquêteurs yi bu ñu demee ci terrain bi ñëw ñu daje ak la commission bi nga xam ne dañ ko créé muy délégué de quartier yi muy conseil municipal bi muy waa société civile muy marabu yi muy ñëpp ñi nga xam muy góor muy jigéen bu ñëwee defal loolu am na ñoo xam ñoo ko war a liggéey defal ñu saytu bi temps la ñu nag ñu dañ koy daal wuti kon d'abord fii doon am na liggéey bu mag boo xam ne war nañ ko fi mën a def te liggéey boobu defe naa ni ku ne xam na ni maire bi taxaw na ci taxaw boo xam ne bi xaaru ci même conseil municipal ñu ngi ko commencé liggéey parce que am na ay projets yu bëri ñu teg te yooyu je pense que fi mu ton nii war na ni moom am na xarub kanam boo xam ne bi Mbàkke war na ko am kon tey jii fi mu toll nii euh, taxaw nañ ci te je pense que itam euh, ñi nga xam ni ñoo ko déjà ñoo ko def mooy li nga xam ni moo dajale nit ñi ñu xayma ko ab xaalis boo xam ne bii je crois que communes yi moo ko defal boppam te tey lañ fi dajale yëpp ak liñ commencé projet bi lépp euh, commune Mbàkke moo ko def a coup de milliard la te loolu si crois que defe naa ni dafay am loo xam ni euh, lu jafe la mais lu mën a réaliser lu mën a réaliser la. tey dana ñëw fii sa Mbacké pour euh, lancer maanaam tàmbali euh, benn plan bu ñuy wax plan de développement communal mu nekk comme ni ko mën a waxee benn plan benn carte d'identité buy wane ni bu bu war a wane xar kanamu Mbacké si juróomi at yi ñu dëgmal donc ni si nar liggéey nag day nekk liggéey bi nga xamante ni. Euh, ñun dañuy yombal rek maanaam li tubaab dox wax facilité euh, maanaam sax ki ñuy jël tuddewuñ ko sax euh, expert wala dara mais facilitateur lañ ko tuddee donc day ñëw yombal pour que ñu nekk si benn liggéey bi nga xam ne ñëpp siy dugal seen loxo mooy li participation ku nekk fa nga nekkee ca la nga nekk ca la nga mën ah da da siy dugal sa loxo te loolu dañuy jaar si quartier yi si quartier li ñuy tàmbalee jaar si délégué de quartier yi Euh, def fa ay enquête bu ñu jógee solo loolu ñëw au niveau commune def ay kuréel kuréel bu nekk day euh, xool branche yi nga xamante ne ñoo ëmb commune Mbacké moo xam agriculture la moo xam élevage pêche énergie éducation santé kuréel yooyu yëpp ñi say yëngu dan leen dajale pour ñu xool jafe-jafe yi fan la féete lan mooy jafe-jafe yi gën a tar jafe-jafe bu nekk aussi dañ koy càmbar parce que jafe-jafe boo ko càmbarul doo ko mën a saafara xool lan moo ko sabab hmm? buñ ko saafaru lan la nar indi ñu am si un aperçu après xool li tubaab nag hypothèse solution maanaam jafe-jafe bi lan la xalaat ne moo ko mën a moo ko war a mën a saafara suñu jógee si loolu nag xalaat yooyu yëpp génn si wàllu jafe-jafe yi day dem si li ñuy wax planification maanaam ñu toog wax jafe-jafe bu nekk yan action yi la ñu war a mënee loolu mooy indi plan d'action plan d'action mën bu ñu ko tegee dañuy xool fi mu gën a tare te mën a yomb def mooy priorité préfaisable ak yi nga xamante ni tar na mais xëy na pour ñu def ko amuñu moyen loolu xëy na ñu yóbbu ko si ñetti at wala ñeenti at loolu mooy nekk planification te loolu aussi li ñu siy jàppale mooy kuréel bi nga xamante ne maire teg na ko ñu tuddee ko commission élargie de planification xam ne moom moo ko jiite président de commission yi nekk si ak aussi acteur société civile yi ak ñëpp ñi nga xamante ni doomaanu Mbacké lañu te yëngu si wàllu santé wàllu éducation wala def maanaam daal duñu bedd kenn ñëppay ñëw ñu toog waxtaanandoo nan la ñu bëgg Mbàkke mel ka si juróomi at yi ni dëgmal parce que conseil municipal bi certes moo fi nekk mais moom moo war a am vision parce que bu ñu génnee si diagnostic bi rek war na war a am gis-gis bi Mbàkke fan la mën a wéeru pour développer ndax si côté éducation la ndax si ndax si wàllu mbay mi la est-ce que si wàllu diine ji la hmm, loolu yëpp aussi dañ ko càmbar li ñu si waxtaan am na benn ponk bu am solo mooy aussi lëkkaloo bu war a am diggante Touba Mbacké ak Kayal parce que ñetti dëkk la ñi nga xamante ne presque amatul frontière hmm, te ku nekk am na kuréel bu koy administré kon ñetti dëkk yooyu nag la ñu war a toogee pour taxawal benn kuréel bi ndax entente communal entente boobu na day dox comme collectivité ñu jël yenn sañ-sañ yi jox ko ko moom mu doxal ko parce que juñ nañ ko fi léegi si wàllu assiette foncière maanaam suufu Mbacké bi ak suufu Touba dem nañu ba jaxasoo suufu Kayel ak suufu Mbàkke dem nañ ba jaxasoo boo xoolee si wàllu transport amatul frontière soo xoolee si wàllu li ñuy wax gestion des ordures ménagères mbalitu Mbàkke yi est-ce que Kayel lañ koy tuur naka la ñuy dem est-ce que est-ce que mbalitu Touba ñu ngi koy tuur biir biir Mbàkke est que war ñu waxtaan pour taxawal benn décharge bi nga xamante ni xëy na fenn lañ koy teg mais collectivité yëpp ñoom ñoo si ñoo ngi ko koy liggéeyandoo kon loolu yëpp ay ponk am solo yi nga xamante ne plan bi incha allahu rabbi euh, mais dina ko génne. Euh, commune Mbacké damul jël ay enquêteurs xëy na Diourbel wala Dakar wala feneen déedéet dafa wax doomu Mbacké yi ah maa ngi defar benn plan kat ñëw leen ngeen xool ndax mën ngeen bokk si enquête kon dèjà rek loolu dara la ndax xale yi ni ñuy jël ay xale Mbacké lañu te quartier yi ñuy dem xam nañ ko donc bu ma demee tamit seen ay mbokk lañ koy fekk seen ay waajur. donc ñuy ñaan aussi population bi euh, ñu accueillir xale yooyu lépp luñ leen laaj mu bañ a nekk laaj bu tab bu ñuy làqatu wala bu ñuy parce que loolu day jouer ci document bi ni mu war a tëddee kon loolu aussi lu am solo la euh, ñu ngi ñaan aussi xale yi ñu liggéey ba baax ak délégué de quartier yi liggéey ak imam ya fa nekk ak personne morale yi fa nekk yëpp pour ñu mën leen yombal liggéey liggéey méttiwul yaakaar naa suñu waree quartier yi ñeent wala juróomi fan rek hmm, daana ñëw laaj laaj bi te laaj bi comme ni ñu ko waxee du sax enquête bu métti bi nga xamante ne dañ lay laaj ba laaj la lu la warul laaj inventaire la rek dañu xool li fi nekk potentiel bi mooy li tubaab di tudd situation de référence parce que booy xool données yi si gën a jafe presque am nañ ko boo demee service yu mel ne ANSD daal la mën a wax quartier bu nekk ñaata ñoo fa nekk ñaata góor ñoo fa nekk ñaata jigéen ñoo fa nekk ñaata mag ñoo fa nekk kon yooyu sa xëy na duñ leen ko laaj mais li fi ñu gën a insister mooy surtout si wàllu quartier bu nekk. xëy na ñaata école moo fa am ñaata poste de santé moo fa am est-ce que am na ay bàjjenu gox xale yi lan mooy seen jafe-jafe quartier bi est-ce est-ce que quartier inondable la yéen wax quartier bi lan ngeen xalaat ni buñ ko defee mairie bi def ko partenaire def ko euh, dina jëm kanam parce que loolu tax moom solo mooy bu ñu demee bay réaliser mbir mi ña nekk ci quartier bi du duñu wax ni lii lu bees la dañuy wax ni lii ñun ñoo ko waxoon kon dañ koy approprier wu kon li ñuy ñaan daal askan bi mooy fan yi ñuy ñëw daanu gis ay xale yuy ñëw xëy na sax daan leen solal badge takkal leen euh, gilet comme ni ko waxee su ko defee ñoom dañuy ñëw rek pour liggéeyal commune bi liggéeyal seen bopp.